asalaamaaleykum sama gars ñi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport dimanche le 22 septembre 2024 ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi lu ama am solo la ci seen bi ñëw ci xibaar yi. xibaar yi dañ koy eh, daal di eh, doore lu jëm ci wàllu championnat bu Angleterre eh, tey jii nii ci dimanche bi la ñu doon jeexal lii di seen juróomeelu journée donc démb ci samedi bi équipe bi nga xam ne mooy Chelsea bu kii di Nicolas Jackson donc moo jàpp équipe bi di West Ham United bu kii di Julian Lopetegui wulli ko wulli yu nooy 3-0 la ko dóor 3 yooyu sax ñaari bit yi. kii di Nicolas Jackson moo ko dugal même sax beneen bit bi nga xam ne Cole Palmer moo ko dugal moom mii moo ko ko paas kon def ci taqrib ci ndam li nga xam ne am na ñoo wàccal si ki nga xam ne moom mooy Jackson nag après cinq matchs yi nga xam ne joué ko ci championnat bu Angleterre marqué na 4 bi kon mu doon joueur boo xamante si ni actuellement dafa décisif bu a baax ci biir championnat boobu noonu di championnat bu Angleterre daanaka depuis ci weeru mai ba tey benn joueur kese moo ko ëppale lu mu dugal ci championnat bu Angleterre mooy kii di Erling Braut Haaland en plus derby Londres dugal na lu mat donc 10 bi ci 12 matchs yi nga xam ne joué na ko bu ñu waxee derby nag contre kii di euh, Arsenal derbi Londres la West Ham derby Londres la Fulham derby Londres la donc boo boolee bit yëpp yëpp yi nga xam ne kii di euh, Jackson dugal na leen ko mat na ci 10 bi ci 12 match kon mën nañoo jàpp ne moom jour la bu mën lii di derby. ki nga xam ne moom mooy Adrien Biayo donc di lii di défenseur central bu équipe boobu di Chelsea moom wax na lu am am solo mu ne Chelsea tout le monde sait que équipe la boo xam ne bu am qualité la. même parfois da ngay génne kenn dugal kenn te équipe bi du perte qualité loolu nag lu am am solo la wax te lu ñu nemmeeku la ci équipe bu Chelsea bi te Enzo Maresca di commencé di ko réussir te bu ko réussir waa championnat bi dinañ xaw a am problème maanaam équipe boo xam ne dafay soudé ba nga xam ne bu ñu bu ñu roppee benn élément dugal beneen élément du ci feeñ donc Adrabia yooyu donc loolu. la doon donc souligner ci li nga xam ne mooy match bi nee na daal Chelsea équipe la boo xamante si ni équipe bu baax la ci fàttali nag Chelsea gaañ ñi benn ndërmeelu rek daanaka la amagun mooy bi nga xam ne ndërmeelu woon na ko contre Manchester City mais boobu ba tey jii nii daal Chelsea mi ngi doxal la nga xam ne amaan na ko fii ci mauvais résultat am match nul la kon Chelsea Enzo Maresca mi ngi commencé di trouver lii di équipe bi mu soxla. ba tey ci cinquième journée bi équipe bi nga xam ne mooy Liverpool après ba mu ndërmeeloo ci dernière journée Premier League bi contre ki nga xam ne ni lu bett la ñu gis équipe bi di waa kii di Liverpool bi ci biir semaine bi fexe nañ ba am ndam tamit contre équipe bi di yooyu ñuy jëlaat indiwaat ko ci Angleterre contre kii di mooy Liverpool Euh, début saison vraiment bu fantastique la ñuy def par rapport ak boo méngalee match yi ñuy parce que boo ko xoolee championnat joué nañ cinq matchs et sur les cinq matchs euh, quatre victoires et une défaite daal di joué benn match Ligue des champions benn victoire te teg équipe bi peut-être dafa xaw a am benn problème muy problème mu démarrage maanaam da buy doog di commencé match bi doo gis Liverpool bi nga bëgg mais au fur et à mesure donc ci biir match bi da gis ne Liverpool donc day gën di danger peut-être que loolu moom mooy li nga xam ne moom war na kaa jubbanti bu baax a baax moom kii di Arne euh, kii di euh, donc euh, kii di Slot bu fekkee ne bëgg na donc continuer lii di résultat yi résultat yi sax dina continuer bu fekkee ne kii di Luis Diaz tànkam fi ko teg moom doomu Colombie bi nga xam ne man daa jàpp ne 4 match yu mujj yi nga xam ne football na ko yëpp dafa décisif contre kii di euh, club anglais yi euh, quatre match yu mujj yi daanaka marqué na si lu mat euh, donc lii di cinq bi doublé contre Manchester United doublé démb contre Bournemouth but contre Brentford et passé contre Brentford benn but kese la daanaka contre Nottingham kese kese la dugalut donc mu doon koo xamante si nii moom tamit début saison bu exceptionnel def malgré les rumeurs yi nga xam ne doon na jug ko ci côté départ am ci fin mercato bi lépp. taxu kaa déranger moom ki nga xam ne moom mooy Luis Diaz kon yaakaar naa ne joueurs yi nga xam ne actuellement adopté gu nañ ak entraîneur bu bees bi moom ci la bokk ci fàttali Arnold di démb aussi ci la profito daal di euh, defaale passe décisif euh, nekk lu toll ci centième biyam yoo xam ne impliqué na ko euh, quatre-vingtième bi et lii di dix-neuf passes décisives depuis donc le début de sa carrière équipe bi nga xam ne moom mooy euh, Tottenham donc euh, donc moom tamit daal di enregistré li nga xam ne moom mooy ñaareelu ndamam euh, ci saison bi ñoom ñu doon jàmmaarloo ak ki nga xam ne moom la ñu tuddee Brentford kenn umpaliwut ne doomu Sénégal bi di Pape Matar Sarr dafa perte li nga xamante si ni moom mooy ci kii boobu noonu après le retour de blessure de ki nga xam ne moom mooy Bentancur loolu nag war ko yee ci lu bëree bëri mu mën a progressé bu baax baax moom ki nga xam ne moom mooy Pape Matar Sarr donc victoire bi. 3-1 la ki nga xam ne moom mooy Solanke marqué kii di Brandon Johnson marqué kii di jam James Maddison aussi daal di marqué kon équipe bi nga xam ne moom mooy Tottenham enregistré na li nga xam ne moom mooy deuxième euh, victoire am après cinq journées ki nga xamante ni moom la ñuy tuddee Manchester United moom tamit ci li nga di samedi bi doon na donc dajeek club bi di Crystal Palace Manchester United daanaka bokk na ci meilleur match yi nga xam ne Manchester United jigéen na ko. match laa wax mais waxuma li nga xam mooy résultat le problème nag mooy boo defee sa meilleur match te gagné amul solo daanaka sax parfois supporter dañuy préféré nga am résultat bu baax ba noppi bañ def match boo xamante si nii donc dina leen bëgg mooy gagné mais aussi tamit affaire gagné avec la manière mais bu fekkee ne gis nañ tuuti progression ci projet bi aussi mën ngaa kontaan donte nag démb yaakaar naa ne bu dul woon ak kii di André a donc résultat bi demee na leen mais teewul équipe bi di Manchester United seere ko avec beaucoup démb kii di donc euh, ki nga xam ne mooy Højlund def na lii di retour officiellement ci club boobu nga xam ne moom mooy Manchester United United daal di def match nul donc zéro bi partout résultat boo xamante si nii du bett kenn ku xam histoire diggante Manchester United ak kii di Crystal Palace depuis 2020 man gis naa jàpp United dóorul équipe bi nga xam ne moom mooy Crystal Palace ci biir Crystal Palace way terrain Crystal Palace boobu noonu ci boppam man gis naa jàpp ne xaaj ko depuis que mu ñu tabb ko comme entraîneur ba tey mënul gagné ki sa place ci Premier League ci biir li nga xam ne moom a gën a xoolaat boppam ndaxte Manchester United au moins a enregistré na quelques euh, démb raté na raté bu rëy rëy ci kanamu ki nga xamante ne ni moom la tuddee kii di donc Anderson mi nga xam ne aussi man euh, Manchester United moo ko formé démb wane na boppam bu baax a baax euh, Crystal Palace depuis le début de la saison amaguñ victoire oui zéro victoire cinq matchs deux défaites et euh, trois matchs nuls loolu moo tax sax ñu am lii di trois points ñoom équipe boobu nga xam ne ñoom ñooy waa Crystal Palace kon nañu xoolaat bu baax a baax seen bopp xoolaat seen taxawaay pour jéem a mën a sauver lii di seen saison. Eh, ki nga xam ne moo doon tëcc li nga xam ne moom mooy cinquième soxna bi moom mooy soc bi nga xam ne amoon na ci première et deuxième ci saison bi ñu weesu di équipe bi di Manchester City bu kii di Pep Guardiola ak élève am di Euh, Arsenal bu kii di Mikel Arteta ñu joué match boo xam ne match bu métti la match boo xamante si ni am intensité la match la boo xamante si ni ñaari équipe yi ñu ngi koy waaj miin muy que kenn ki day défendre kenn ki di jouer football daanaka chaque fin du match sax kii di Pep Guardiola donc di leen mokkay maanaam di leen xaw a ñaawal naan leen yéen même bu fekkoon ne aussi dañuy jouer yi eh, ngeen doon 15 ñu ñu doon 10 dafa mel ne da ngeen continuer di défendre loolu nag li ngeen ko xamal di n la ku bi nga xam ne moom réussir cité c'est très clair défendre lii di euh, créer occasion parfois profito ci lii di occasion yi après ba équipe bi nga xam ne moom mooy Arsenal euh, daanaka euh, njëkkee concédé bi ci kii di Erling Braut Haaland nekk li nga xam ne mooy dixième biyam Erling Braut Haaland nekk koo xamante si ni ku inarrêtable la actuellement n'importe quelle équipe donc bu kii di Al Ibrahima ne dajale fi ñu toll am problème parce que dafa nekk ci li nga xam ne mooy confiance lépp loo xamante ne gaañ rawoon nañ ko ci euro bi nga xamante ne équipe nationale bi demul donc mi ngi profité pour daal di koy dabuwaat ci li nga xam ne moom mooy championnat bu Angleterre après cinq journées seulement déjà dix bi pour ki nga xam ne moom mooy Al Ibrahima. bit bi nga xam ne dugal na ko nag donc record la pour ki nga xam ne moom mooy Haaland parce que moom moo doon lii di téeméeri bi yoo xam ne dugal na ko ci moyen bu Manchester City te xam ngeen ne Erling Braut Haaland ab recrue bu bees la maanaam daal koo xamante si ni la yàggul man Manchester City daanaka 100 bi après 105 match day daal di tolloo kii di Cristiano Ronaldo comme ni ñu ko expliqué si dernière vidéo bi xam ngeen ne Luis Suarez demee Barcelone en match la joué pour dugal 100 euh, kii di Cristiano Ronaldo 2009 ba muy dugg dem match la dugal pour pour le pour mën dugal 100 moom Haaland donc tolloon na Cristiano Ronaldo 105 match 100 bi ki nga xam ne moom mooy Mikel Arteta ak équipe am jege woon nañ trop donc pour faire li nga xam ne mooy benn exploit way way équipe bi di Arsenal jege woon na pour def lu rëy muy lan jéemoon na li lijjanti benn match nul parce que 45 minutes la ñu joué 10 war boog 11 contre 10 joueurs ñu teel leen rouge l'attaque ñuy mi ñoom équipe boobu noonu donc daanaka la leen rapproché woon rek xam nga Edu ba naan transfert yi baax na mu ne transfert yi am na problème parce que dañoo war a recruter pour renforcer le milieu de terrain parce que kii bi nga xam ne rouge nañ ko peut-être bu fekkoon un milieu de terrain la duñ ko rouge mais la nga ko footballoo du place am parfois attaquant yi dañuy def des fautes bêtes point noir ci match bi après 2-2 bi mooy euh, la blessure de ki nga xam ne moom mooy Rodri après li nga xam ne moom mooy altine bi pour que ñu xam gravité bi bien sûr ki nga xamante si ni moom na loo xamante si ni tiital na waa Manchester City mais itam tiital na équipe nationale Espagne yi nga xamante si li nga xam ne moom mooy vraiment ci lii di biir équipe bi naka noonu tamit euh, ki nga xam ne moom la ñuy de Iliman Ndiaye marqué lii di premier butam euh, Premier League euh, ci mooy équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee waa euh, Everton mënees naa wax ne sax premier bi tout court parce que mësul dugal ab bi ci championnat bu Angleterre avec kii di Sheffield United waaye tamit malheureusement ku xam Everton xam ko ak i résultats yoo xam ne du ay résultats yoo xam ne yu positif la. donc démb dafa mujj am match nul contre Leicester City euh, waaye ñu daal di nil un but partout kon ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye d' accord but bi jariñ na mais aussi tamit peut être que dina ko jox confiance pour que mu mën a adapté moom maintenant rapidement ci physique bi nga xamante si nii moom la gaañ imposé et parfois mu xaw a am lii di nonchalant résultat yi nga xamante si ni moom moo am ci yeneen euh, lii di match yi West Ham United toujours pas de victoire daal di jël défaite 3-0 contre équipe bi di Chelsea bu yii di Nicolas Jackson ki nga xam ne mooy Aston Villa aussi jàpp équipe bii di Wolverhampton duma ko lu toll ci 3-1 Wolverhampton ba tey moom it mooy naat di amagul victoire Fulham Newcastle United euh, victoire pour Fulham 3-1 Leicester City def match nul ak kii di Everton 1 bi partout donc but marqué par kii di Everton euh, par kii di Iliman Ndiaye ci but Everton bi 3-0 pour Liverpool Southampton toujours moom tamit di euh, nga xam ne euh, partout et Brighton euh, contre Nottingham Forest ñu daal di nil 2 partout beneen nul bi nga xamante si ni moo tëj lii di cinquième journée championnat bu Angleterre mooy diggante ki nga xamante si ni moom la tuddee waa kii di Arsenal kon bu ñu nemmee ko mënees nañoo gis ne championnat bi après cinq journées Manchester City toujours mooy première avec treize points kii ci topp di Liverpool ak kii di Aston Villa euh, benn point la leen équipe bi di City daal di rawe Aston Villa tamit mooy troisième bi Arsenal quatrième place deux points avec Manchester City leader kii di Chelsea cinquième position donc Chelsea nekk position bu baax après donc si dix points yi nga xam ne am na ko di trois victoires donc kii di nekk United naa jàpp ne euh, cinq équipes wala six équipes yoo xam ne ba tey amaguñ ndam ci li nga xam ne moom mooy championnat bi di kii di Crystal Palace di ki nga xam ne moom mooy Ipswich di kii di Southampton di ki nga xam ne moom mooy Wolverhampton benn nemmeeku nag ngeen mën a def ak Everton aussi mais aussi tamit benn nemmeeku lañ mën a def ci li nga xam ne moom mooy classement bi mooy que gis nañu ne. ñett équipe yi nga xam ne si ne ren la ñuy yëg kenn amagul victoire di Southampton di kii di Ipswich di ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Leicester City est ce que day wane ne ñoom amaguñ niveau pour rester ci biir championnat bi on verra gaañ lan moo leen gën a impersonné ci cinquième soxna championnat ba Angleterre di lañ jox dig daje ba ci kanam incha allah ci benn vidéo yaa ngeen jëf.